ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp euh, euh, di wax ne dara tey balaa dara tey damay wax contentement bi ma am am na fu mu commencé mais amul fu mu yem parce que projet bi ku nekk gisoon na ne projet bi amoon na problème yu bëri tay ah, tey ku mën wax tay président mo lancé projet mo décanté projet parce que tay projet problème yi ci amone yëpp ñep dañ ne woon kenn mënu ci dara mais courage am tey moo may ak bëgg réalisation euh, projet de pollution de la baie de Hann may tay mu dox lepp ba tay lepp soti kon kuy wax merci mom ngay wax merci di wax né tay population yi contane nañu pêcheur yi ñep contane nañu parce que ku gisoon baie bi bien avant ñun fi lañ doon sangoo ça fait 30 ans de cela kon gisoon nañ ni meloon ni mu mel nii naqari ñu ñun ñëpp kon tey bu ñu ñëwee ba gis ko dañuy jàpp ne ñi ko initié woon dinañ leen gërëm parce que ku mel ni tonton Mansour du Samba Gueye e Max Diop bokkoon nañ ci ñi nga xam ne ñoo initié projet dépollution de la baie de kon tey damay wax ne li ñuy ñaan yàlla rek mooy nii lancement bi yombee si ñun yàlla na projet bi gaawee noonu mu bañ a am benn gàllankoor parce que dina permettre population yi ñu delluwaat ca na woon parce que ku ci nekk gis na ne bu ñu daan def mbaal fii vers les années 76 ba année euh, deux yooyu géej gi dañ daan mbaal jën yi taxaw fi duñ ko mën a génne parce que lan parce que booba géej gi amul polier wul woon mais tey bi mu polier nii nag ñaanuñu lu dul ñu dépolluer yi ko dépolluer géej gi euh, ressources yi ñëwaat. femmes yi mën a bénéficier waat ci li fi nekk seen économie mën a yokk euh, dafa impacté woon tamit ci santé population yi gis nañ seen yaram yi ni mu doon xasane bët yi di yàqu kon tey loolu yëpp bu projet bi taxawee ñun dañuy ñaan yàlla mu yegg ba ñu mën a retourne waat fa ñu nekkoon avant muy bee boo xam ne amul pollution amul dara ñu mën a am suñuy ressources di sant ñëpp di gërëm ñëpp di féliciter le président Macky Sall ci engagement bi Euh, la dépollution ne prend pas en compte les déchets rejetés par la mer C'est loolu dafa problème mu même si on a dépollué, nañu au usées toujours des loolu nag y avait une agence bu tuddoon euh, Sen environnement bu fi nekkoon gisoon nañu euh, ni mu doon def ba benn déchet amatu fi woon loolu nag euh, man j'avais dit que ni man romb phase du projet pollution de la baie de Hann projet bi ma nekk di dox léegi maa ngi ciy dox ay jéego yu bari au niveau du ministère de l'environnement parce que foofu fa lañ logé woon l'agence seen environnement kon tey man dama jàpp ne sama liggéey pareegul xeex nañu ba projet bi gis jour léegi li ci des nag mooy xeex ba nga xam ne bu projet bi di pare projet boobu day ñëw taxawaat su ko defee gàllankoor yi ci war a mën a am yëpp teel ko dindi ba nga xam ne dina ñettuwaaye bee bi mbalit du fi am pollution du fi am dara du fi am loolu nekkaat na beneen combat boo xam ne man en tant que député commencé naa ko porter au niveau de l'Assemblée nationale ba ñu ñaan yàlla mu may ñu ci ndam